Moustapha euh, Diop moom mi nga xam ne moo waral jataay bi waaye suñu sang bi nga xam ne euh, jóge ba daarul naan di doomi cheikh euh, maam Thierno Mbacké ñu xam ko moom itam ak sëñ mustapha ci ak taalibe ku mbokk ak xarit buñ ko tuddee mooy kilifa jataay bi ndax noonu la ko yàlla dogale sëriñ tuuba radiallahu anhu taxawaayam ci alquran taxawaayam ci sunna taxawaayam ci bëgg yonent bi koo xam ne danga aju ci moom rawatina nag nga taxaw taxawaay booba ñu xam ko ci yow nga jàng ni ñëpp ba noppi teg sa tànk ci yoon wi kooka nu mën a toll ci ay at sëriñ bi lañu koy xoole fu mu teew it moo fa teew kon sëriñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu sëriñ Cheikh Diop mi nga xam ne itam mooy way juru sëñ Moustapha kon Eh, foofu la ñu yemale nuyoo bi mu jàll ci mbooleem ñi fi teew way juri gone yi nag ñi ngi leen di ndokkeel rawatina ñi seen doom wattu kaamil bi ndax bu fekkee alquran su ko sa doom dalee ca basin miim ja daal di ngay mucc ci safara kon bu sa doom wàccee alquran wala mu tari ko kon yow bu fekkee xam nga dara ci ëllëg wala nga xam dara ci lu baax wóor na la ne wëratoo ñee keneen boo amee doom ju mokkal alquran amul benn jigéen bu waratee mën a wane ak a bang-bang ci sa lu tax nga di ko gis waaye nag lool ku ami bët aki i nopp akum xel moo koy mën a gis kon ñi ngi leen di ndokkeel yéen particulièrement waaye di ndokkeel nag ñeneen ñi seeni doom na ci daara ji ñëpp ndax weesu nañ basin te basin rek miim doy na ak may doy na ak cant xam naa waxtu wi du maye lu bari Euh, ci wàllug liñ bëgg a waxtaane waaye am na tomb yoo xam ne dañ koo tënkoon ndax yitteel goo xam ne euh, yitteel na ko euh, li may wax nag bala ma cee egg danaa wax ay baat yu néew rek ci sëriñ Moustapha ndax su fekkee ne da a tànn daara ji indi fi seen njaboot ñenn ñi dañ koo dégg rek rafet ci moom njort ñenn ñi ay mbokkam lañ seen mbokk ubbi na daara ñu dem ca waaye nag am njàngam ak ak yu bareem xëy na xamuñu ko loola tax na ba ngir wax seerey dëgg ak itam ngir liggéeyal lislaam bi nu daara ji mi ngi ko tuddee kanzul muhtadin kanzul muhtadin xam ngeen ne aw tur la ci turi xasiiday sëriñ Tuubaa yi mooy ñi jub al muhtadun ñi tege ci yoon wa seenub denc a ngi nii nga xam ne luñ soxla fa lañu koy fekk kon ku ne xam na ne ku dencal alquran aw nit tuddee ko kanzul muhtadin ku fa dugg ci way jub yi nga bokk te am nga xaas ju toll ni boo fa génnee incha allah danga fa génne lu am njëriñ sëñ Moustapha nag euh, li ma ci wax ñii ñëpp ci sama càmmooñ mën nañ koo seere ndax mook ñoom ñoo bokkoo nekk ca daara ja bi ma ñëwee sama xol gën naa seddati ndax ñoom seen jàppalante ak seen ànd euh, sëñ xaadim jéy mi nekkoon seen doyen di bokk ci jàngale jàngalekat yi sëñ yaddaali mi yaakaar naa mook Moustapha buñ taree ndoo wutit du ñu soree ak Cheikh Fadal mi ak ñi ci ginnaaw sëñ taala mee nekkoon seen jëwriñ tey mu yore macha allah daara yu am solo kon su ma ñëwee fekk ñoom ñu ànd ak moom liggéey bi di ko taxawu di ko jàppale damay xam ne rek ñoom xam nañ Euh, seen wàll xam nañ seen digg ak Moustapha li ci war te ngi koy taxawee euh, sëñ Moustapha bi mu nekkee daaru tanzil daaru tanzil itam mooy sunu daara ji ñu jiite daaru tanzil mooy këruk alquran at tanzil daaray imaamu Malik ja nekkoon madinatul munawwara moom mootu doon daaru tanzil nun itam ñu barkeeloo ko tudde ko ko yàlla sarax ñu sëñ saaliwu daal di am ay daara tudde ko daaru tansil sañc ab quartier tudde ko daaru tansil loolu muy tawfiqi suñ boroom joo xam ne ah ñun ñooñi ñëpp eh, fa lañ bokkoo nekk mu nekk fa nekkin woo xam ne jàng alquran bind kaamil lu ci tajwid ndax xale yi doon jàng ki ci mujj jàng nii nga xam ne moo jeexal rangug ñi nga xam ne ñoo doon barkeelu maa ngi wax ci sama xel ne ko yow incha allah dangaa war a bokk ci imam yu mag yi nga xam ne ci jumaa yu mag yi la ñuy taxaw ndax alquran ji boo ko déggee dañuy ñaan mu egg bu baax te barkeel ay moromam egg te barkeel noonu yi mu ko jàng su fekkonte ne nii mënewu ko ni du ko mën a def ci ñoom te dañuy jéem ñoom ñooñu li muy neex neex wóor na ma ne nam bëgguñu mel ko melaguñ ko ndax xam na ne am na lu ci des ndax ab tàmbali la ñi ngi ñaan nag tàmbali ñu dem ba kenn duutul xaj fii ci conférence bi te ñoo ngi ñaan bu déwénee sax nag eh, ñu bañ koo defee fii ndax dafa war a weesu fii incha allah taala mu jàng al alquran yemul ci jàng nekk na mustanir mustanir mooy ku dañ kumpa ci xam-xam jàng xam-xam ba dañ ci kumpa beneen bi ci des yooyu am na solo waaye li ëpp solo mooy nit xam mooy kan xam ne doomi jullit nga xam ne as gor nga xam ne taalibe nga xam ne alquran mooy sa cër nga fas yéene ci sa jëflante ci sa doxin ci sa waxin lépp loo ci man nga di ko ca dund jàpp naa ne ñi nga xam ne ñoo fi indi seen doom bu dee tur wa dégg nañ ko it buñ ñëwoon nuyoog moom jëflanteeg moom tuuti bu buñ gisut lu dal seen xel bala ñoo xam am na xam-xamam déet dañuy yóbbu seenu njaboot kon sëñ Moustapha ñi ngi lay wax ne eh, da ngay door a tàmbali yàlla boo am ndog yàlla boo am ndax yàlla boo am ndog bu la lenn lu aay dab ba jot la waaye bu lenn lu aay nekk ci sa wet mbaa ci sa kanam ci barkeb sëriñ bi su ko defee kon li nga xam ne moom lañ bëgg a tënk mooy alquran wal qiyam alquran ak ay valeur ndax nekk nañ ci jamono boo xam ne mboolem li mag ñi daan ndamoo ak sagoo ak nawe nit dañ ko jël defatuñ ko nattukaayu mbaax dañ koo sànni fële wut beneen nattukaay boo xam ne mooy buy xotong xotongi boobu wala muy kesang kesang yi nga xam ne bu yëngoo ñëpp geestu mu am ay numéro ay chiffres yu ca nekk boobu bari le ko ci la ñuy natte mbaax la muy waral tam luxe ba nga xam ne ku am alal man koo am luxe booba la ñuy natte ci la ñuy joxee cër ci la ñuy xeebe ci la ñuy yabaatee kon loola du nattukaay boo jëlee lu matul kilo muy liibar genn wàll liibar nga di ci natt ba ne am naa bërigo am naa cent kilo ñi xamul nattukaay bi nu mu toll ñoom jàpp nañ ne am nga cent kilo waaye ka ko xam xam na ne li nga natt cent kilo yi li ci manqué bari na kon bépp nattukaay bu ñuy natte nit ngir ne dafa baax wala di ko natte ngir dafa am wàccuwaay wala dañ ko war a fonk su fekkee ne wuute naag lii sëriñ bi wax ne waalam bi anna ma tafawutul wara bil ilmi wa diini yakunu fasbira nee na lu nit ñi rawantee ak xëccoo ak di ca yëkkale yëkkatikonte neen su fekkee xam-xam bu leer ak jëfe diine gu leer nekku fa nee na la ñuy rawantee matul rawukaay mëtul nattukaay bu dee lu ñuy natte kon alquran inna hada alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam suñu borom nee na alqur'an ji mooy wane yoon wi nga xam ne moo gën a jub mooy wane lépp lu ngeen di wut la ca gën a dëgër gën caa am solo alqur'an mooy ki nga xam ne moo koy wane borom bi subhanahu wa taala wax nag ci benn aya ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى لا يجوز جرنا نت فنك القرآن جرنا نت صن القرآن جرنا نت يتم دخ ولا ميدو جمشي yàlla daf ne képp koo xam ne sama dikr te mooy alquran sama dikr te mooy alquran ak dikru ci turi alquran la bokk léeg-léeg boñ ko beree ak dikru day firi dikar day firi tudd waaye nag léppi alquran boo ko boolee ak dikr la tudd nee na nag ku ko wan ginnaaw dana am dund goo xam ne gu kare gu naqari lay doon mbokk yi bu ngeen gisee koo xam ne am na kër gu rafet am oto bu rafet am lépp loo xam ne war na koo am ba noppi ñu jekki-jekki ñëw ñu ne dañoo fekk mu xaru yaakaar naa tubaab yi nga xam ne lépp lu ñuy wut ci lig ñoo ñu ko ëpple la fay xaru par bis kenn xamul nu mu toll waxoo par weer su fekkoonte ne al imaanu billahi gëm yàlla gu wér céng mi ngi ci seen xol yi dund alxuraan mi ngi ci seen xol yi lu ñëw danga ko mën a supporter da ngay xam ne ci borom bi la jóge te borom bee la bind te li taxoon mu bind la mooy mu bàyyi la fi ab diir jële la fi boo demee mu nattu sa doxin ak sa waxin ak sa nekkiin waaye ginnaaw ñoom dañoo wan ginnaaw téere borom bi subhanahu wa taala ak képp ku leen nuru ca wan ginnaaw googee yàlla nee na dana am ay maishatan dànkan mooy dund goo xam ne gu xat lay doon te ma ci jublu sax nag fil xabri bu demee ci bàmmeel foofa mooy dund ga gën a garaaw ga gën a xat bàmmeel bu xat te lépp loo xam ne nii luy lore te naqari ma nga nee na ku wan ginnaaw téere bi loolu nga fay fekk waaye loolu da koy tàmbalee xeeñ ci àddina muy am ay jafe-jafe yoo xam ne bu tëddee du nelaw lum song rekk mu dëgër lum lijjanti mu jafe bootul day dem ba jàpp ne cat da koo jàpp bu fekkee dafa ñeme ay maaman sax ak i gis kët day dem di xool lu ca pitaaw ya walla di gisaanelu ñu ne ko yow day cat dalaa jàpp wala ñu ne ko dañ laa liggéey cat am na liggéey am na ndax loola lu bon la te alxuraan tudd na ko ba ŋàññi ko waaye mën na am defuñ ko benn ci yooyu bootul digganteem ak boroomam moo ñagas nit leg-leg bu fekkente ne yéppam daa dëgër yéppam daa jafe mu toog ci biir néegam xoolaat boppam ne xam naa sama digg ak yàlla moom fi la mbir mi coole nga wax ci sa xol ne sama boroom damaa bëgg a déggoog yow damaa bëgg a jubóog yow ndax xam naa ne li ma nekk jaaduwut xawma lu ma dal waaye wóor na ma ne ci man la waaye du ci yow mu tàmbali di xool dundiinam ana lu ci wuuteeg alquran ana lu ci wuuteeg sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu tàmbali di xool boppam benn par benn léeg-léeg nit li tax mu jafee waar wala mu jafe yee bu déggee aaya alquran léeg-léeg muy xalaat xelam dem ci diwa moom lii ah diw moom aay diw conférence bu waroon na ko teewe moom laal nañ ko nga jàpp ne alquran diw lay waxal waxut ak yow boo seetaanoon sax ab théâtre wala benn sketch ñuy wax sa xel dem ci ne diw daa waroon ñëw fekke ko yow fàtte nga ne yow sa bopp nga waroon a jël xool ko ba xam jël alquran def ko muy ab seetu ndax ku ci waaj ba bëgg a génn sa kër am looy doxi wala looy lijjanti ji rawatina boo jëmee foo xam ne ay nit dana dana dajeeg yow mbaa nga dajeek ñoom mbaa nga dem ñu xool la faaw bala ngaa dem da nga tàggu seetu seetu boobu nga xam ne nit a ko defar da nga koy tàggu ba mu la ne tout va bien yow kay macha allah bu dee mbaxana mu ne la wengut bu dee tagal mu ne la jekk na bu dee maquillage mu ne la ruubewut yëf yëpp jaar na yoon nga col ba eggal xool mu ne la kase wudde ah kol nàngam nga dem jëliwaat bii dafa rose lee la war a àndal nga dem wuti ko bu dee écharpe nga xool ba jekk ba gis ne correct na nga doog a dem non nii la alquran di régler suñu dund ki kenn ku ci nekk dafa war di xoolaat boppam ci ay xiyam muy ay valeur ay jikko te alquran li ci gën a néew mooy dégg ñu nodd nga dem jàkka ja aj màkka jot na comme waxtu wi nga dem aji asaka jot na nga génne ko alquran boo ci génne woon yii wax yooyu la cay des kenn xamut nu mu toll te la cay des la ca ëpp nu nit ki war a mel ba mën a jariñ boppam num mën a mel ba war a jariñ ay mbokkam num mën a mel ba jariñ ñi ci kaw suuf ba ci sax jinax yeeg fas yeeg yooyu yëpp sax sa borom subhanahu wa taala ci biir alquran ak ci biir sunna su yonent bi wan nañu nañ war a jëflanteeg ñoom kon alquran mi bàyyiwul dara bu suñu boroom ne ku wan ginnaaw sama njàngale moomu dana am dund gu naqari fii ci àddina dana ko am alaxira te bu ëllëgee buy dekki day dekkiwaale ngumba ndekete kon ñi nga xam ne seeni bët gisul fii ci àddina loolu ab nattu la ni nit ki tànkam di mettee wala boppam di ko mettee wala ab loxoom noonee lool noonu la mel ab nattu la boo xam ne bu ëllëgee bu jëfee lu baax fa gaa yu baax yi jëm lay jëm day fàtte loolu te dundu àddina dafa gàtt waaye nag ndekete ka nga xam ne moo gumba dëgg-dëgg mooy ka dem ba foofa ca àllaaxira gisatut mu daal di poser question borom bi ne ko li ma xacharta ni ya ama bi ñuy fang nit ñi dajale ñëpp kenn ku ci nekk ñëw taxaw kenn duutu sol benn yére keroog buñ dajalee bis ci nit ñi ku ne yaramu neen lay def kenn ku nekk bi muy judd ni mu ñëwee ñu dooñ ko teg ko sarax ko benn sér sàng ko ko bu ëllëgee sér boobee du ko wër yaramu neen lay def yonent sallallahu alayhi wa sallama nee na koo xam ne sax noon yi ñuy def gone gu tuuti dugal ko ci biir benn saal teg ko ci benn taabal wàcce ko solal ko mbubb su weex mu tudd njulli loolee ñu dindee ci moom tax mu tudd njulli buy dekkiwaat sax loola day dellu si waat fan lañ ko sànni woon ba yàlla di ko indiwaat buur bu am kàttan gu toll noonu ba ci sa rëddi baaraam yi boo dekkee ñu suul la nga daal tàmbali newi tàmbali sakkan sax yi jël seen wàll suuf si jël si jël wàllam yax ya nekk fa ba fënëx bootul bu toogee ay at sax ma ne faa keneen bu borom bi dekkalee jëmm jooju wala jëmm yooyu nee na rëddi baaraam yi sax dana ko delloo si waat buur boobu ku séq ak moom da ngay jàpp ne yow entre yow moom kese fi la mbir yi nekk boo fexee ba sa digganteeg moom mel ni mu war a mel na la wóor ne sa lépp day jag lépp loo ca gis nag jagut nag nga jàpp ne daa am kullun muyassarun lima xuliqa la bul jàpp ne boo tegee ci siraatul mustaqim di jéem a góorgóorlu dangaa war a am àddina boo ko amul jàpp ne lii jëriñu la déedéet ku nekk daa am luñ ko binde am na koo xam ne nii ci terrasse lay dëkk am ko dëkk ci étage am ko dëkk ci néegu ñax loolu wàllu àddina la poñet la waaye dund goo xam ne jëmm ji xelam dal na boo ko gisee xam ne mi ngi ci jàmm bis bu ñëw dana jàll bu waree lekk dana lekk bu waree naan dana naan te borom bi nag boo melee noonu nga war a mel sax du la du la bàyyi ci yenn yenn jafe-jafe yi xëy na am na foofu ci àddina sax bu la bëggee te nar laa defal xéewal du la bàyyi nga egg fa waaye waa bi mu dekkee ñu fang ko boole mbooloo mi yépp nit ñi di gis moom muy làmbatu di palamtu mu ne yàlla lima xachartani ya ama wa qad kuntu basira lu tax ma ñëw fii ànd ci mbooloo mi ñépp yi gis man gisuma te ba ma nekkee ci àddina di dund dama doon gis yàlla ne ko wàcce na aayay alquran wàcce naa aayay kiimtaan mboolem yi doon xew nga war cee mën a jànge mboolem aayay alquran yi nga waroon a mën a settantal jëfe ko yooyu yëpp da ko fàtte sànni ko ci sa ginnaaw topp àddina loolu moo tax tey mënuma laa defal lu dul maam say bët moom lu mën a xew doo ko yore ñu doo ko xool nu ñuy def ak yow mbokk yi téere boobu lan amal affaire téere boobu nag moo nekk ci mënaas moom la àddina bi ciblé ndax lan ku ne xam na ne gone yii ci suñ kanam ak yi ne ci yeneen i daara di jàng alquranul karim Sénégal gii ni daara yi mel macha allah capital bii di ndakaaru nga xam ne les années quatre-vingt képp bu fi nit masaan ñëw bu delloo dañuy xool ba xam lu soppi ko ci moom jàpp ne ndakaaru ku fa dem yàqu ñu dem ba dëkk yu tedd yu mag ya ñu di fa jële ay gone di leen indi ndakaaru ñuy jàng si maa ngi nettali loo xam ne suñu benn xarit sëriñu daara moom la ko benn kilifa nettali woon ne ko président Abdou Diouf da doon wax ak moom ba moom ndekete Abdou Diouf a ko ëpp gis-gis muy wax daaray alquran yi ni mu tàmbalee bare ak niñ mel ba di ca wax ay wax président ne ko euh, alquran jooji de man de jàpp naa ne bu ñu wëtuwut suñ pale bii sax mën naa ñëw ba egsi fi loolu la ko président wax te lii may wax ni ay quatre-vingt-cinq quatre-vingt-six la 1986 kon téere boobu nag mboolem ñi nga xam ne jikko yu bon la ñuy jàppale moom la ñuy taxawu ci àddina lu baax da leen a déranger ndax ku baax duutuñ ko mën a jariñoo duñ ko mën a dugal ci liñ bëgg xam nañ ne défi bi ne ci seen kanam te di leen yàqal mooy alquran ndax kum pare ci moom ñoom noppi nañ ci moom kon nag mbokki jàngalekat yi nañ xam ne alquran mooy li gën a rëy ci kaw suuf nu di ci xëy di ci gont di ñaq ak a feri buñ ko jëndee dara yii xoy-xoy yépp day jeex ku ko topp it loo ca mën a am diir bu gàtt nga cay am kenn du la gisat sëñ Xaadim Jeey wax na ko léegi nii ni ñuy nettalee Cheikh Ahmad Saxir di ko nettalee sëriñ Chouaïbou di ko nettalee sëriñ Mor Mbaye Cissé di ko nettalee sëñ Dame Abdourahman ak boroom xam-xam yooyu bu ñuy lim ñu jaare ci ñoom ci ci mbaax kenn xamul nuñ toll ñoom anañu waaye ana ñeneen ña nga xam ne àddina lu bari lañ ci amoon daani ki kenn tuddatu leen ndax lañ yoroon alalu àddina rek la bu ñuy tudd tudd ba ci ñoom lay yam kenn du ca tudd tudd keneen waaye ñee nga xam ne ci diine lañ nekkoon di jàngale di yar nag bala ngaa egsi ci ñoom da lim mbooloo daal ne ñooñu ñëpp kii moo leen defar kon sas wu tol noonu ku nekk ci sa kanam boye boo nga ñemee muñ waaye booye boo nag ñu bàyyi xel ne nooni lislaam yi duñ ñu ci bàyyi duñu daj mukk gembu laxasaayu pour jële ci waaye duñ ko man nan xam ne ñun ñuy jàngale alxuraan ay buur lan ci nguur gu rëy lan nekk donga yi jàngal ñoom ci nguur gu rëy lañ nekk Sëriñ Tuubaa ko wax nee na inna tilawata alkitaabi mulku wa huwa liman yabghi najaata fulku nee na kii jàng alquran ci nguur la nekk bu ëllëgee ba nit ñi am jafe-jafe gaal yi jël nit ñi di leen sowe nee na su boobaa alquran mooy gaal gi koy jël di ko sowe jàllale ko ila saati saati in najaa nga xam ne tefasug mucc fa la ko alquran di wàcce kon mbokk yi ñu gën a jàppaat téere bi te way juri gone yi ñu bàyyi xel ne ñëw ci conférence bi doomi Aida tari nga jooy sargal ko ñibbi daat ne Moussa Alaaji de damaa bëggoon Moustapha mi dem daara ja ah booy ñëw xamal ne doomi ayda jii di tari ba ngay jooy di yëkkati sa teraanga di ko jox diirub lem ne ci daara ji léeg-léeg mu sofe de ba yii boo ko gisee du mën a wax léeg-léeg bët yi xóot de léeg-léeg lex yi dem léeg-léeg boo ko séenee mu jóge daara ji ñëw vacances di ñogor ñogori nga defee ne daa feebar alxuraan a diis te metti bu amee ñetti fan ñeent ba lu day dellusiwaat bu fa jógee ba ñëwaat ci daara ji noonu lay def ñaari at ñetti at ñeenti at ba yàlla may ko alxuraan nga dem nag jàpp ci sa loxo doom nag indi ba pare jàpp ne nag njëg googee nag du ko kii déedéet alxuraan daa am njëg dama ko daan wax gone dama naan leen alquran da dangay toog ba sa ndigg metti ñàkk nelaw ba say bët xonq xiif ba sa biir bii jooy nga doog a mokkal ñii ñi wax naa ko ba tàyyi ci seen nopp yi te ñoom ñiy jàngale xam nañ ko waaye teewut sëriñ Touba da daan wax ne lool sëriñ Habibu Mbàkke moo ko doon nettali nee na sëriñ bi daf ne alquran du dugg ci ay suux suux mooy ku ne fa tax yaram wi lépp ñëw buy jàng alxuraan alxuraan ji du dugg gone ga gën a costaud gën a am yaram boo ko yóbboo ca daara ja muy jàng balaa alxuraan jee mokk bu delsee da nga naan kii xanaa du woon diw ndax tuuti waaye nee na yax yooyu bu ci alxuraan duggee suuxal ko bu demee ba ñibbi ñetti at képp su ko amee yow sëñ daara bi ko doon jàngal boo dajee moom doo ko xamati day nekk da lay tiim ca kaw doon patron doon kilifa. kon ñu bàyyi xel ne lépp lu waay di wut dafa am njëg dafa am piri waaye bëgg naa akara waaye duma sii moom kooku moom neexu la neexu la neexu la euh, euh, dégg kon sëñ Moustapha ñi ngi lay ndokkeel di ndokkeel sa ñaari way jur yi nga xam ne ñoo la muñoon yóbbu la ca daara ja di la fa fekk lépp di la taxawu ba bis ni tey ñu continuer taxawu boobu nga xam ne ñoom dañoo xamoon liñ lay wutal te bañ la koy wutal kat yow xamoo ko woon xamoo ko woon kat ba nga demee ba xam ko nag xam nga ne liñ la wutaloon bi nga demee di ko jéem a fàggul ñeneen xam nga ne mooy yoon wa kon ñi ngi nuyu mbokk yi di ziyaare ñëpp di kontaan ci xale yu tari bu rafet biñ tari doonte ñu doon gunge lañ xam naa ne ña ñuy gunge kon buñ ñëwee macha allah suñu xol dana gën a sedd hada wa billahi tawfiq wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu euh, jërëjëf suñu euh, kàddu am na solo lool waxtaan bi képp koo déglu da nga ci dégg ay njàngat yu bëri da ci mën a jëlee xam-xam bu bëri te da nga ni nit ko am expérience ci li muy wax la ci euh, tàmbalee moom laay njëkkee su ngeen ñuy toog paas bi suñ euh, yedaali nii suñ fàllu mii ak suñ ci daaraam lañ mokkale alxuraan man mii di wax ak naa ci daaraam ay at ak jàngale alxuraan karim Moustapha mii Moustapha Moustapha Diop mii foofu la defaraatee alxuraanam kon suñu xarit jàmbaar yi nga bokk jàmbaar la kon fii daanaka daaraam la rek mën na ni euh, branche la ci daaraam kii daañu tuddee gën gerte gi daal gën si waaye daanaka benn ndax kii jàngale ni muy jàngale fii fa la ko jëlee suñu xaalis bi mën a jàngale la daaraam la te ku xam la xam euh, méthode internat koy wax barab yu bëree bëri waaw yàlla may na ci expérience ndax yàgg na fi te da ciy jéem a amélioré te loolu dafa am solo ci mbir